alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi bismillahi rahmaani rahim mbokki téléspectateurs yi fu ñu mën ci àddina bi mbokki afrique yëpp tey jii tey la fukki fan ak benn ci weeru gàmmoo ñu ngi nii tey ci li ci ci gaal gale ngay gis mu ngi ànd ak yeneen gaal mooy ñoomin kay nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci île di ñëw di gàmmoo si ñii ñi ñi ñooy ñëwee géej am na ci ñoom ñu ñëwee oto am na ñeneen yeneen gan ñoo xam ne itam ñu ngi bàyyeekoo yeneen barab waa Nigéria oto la ñuy ñëwee ñu ci bari ci ñoom ñu ci des di ñëw avion am na ci ñu ñëwee itam ci suuf eh, gis nga ko gaal yaa ngi noonu eh, ñu ngi dugg si kawalak ni, yow bu dee yow ku xam kaolak nga da nga gis ne euh, côté ba léegi tey nga gis joraan mi ngi tolloog boori relais hôtel relais ci kaolak gis nga ko ñu ngi traversé boori poru kaolak ñu ngi ñëw ñëw jëm si ci teeru bi nag ñu ngi teer ñu ngi teer si talibé ñoowin kay yaa ngi nii ñoom la ñuy ci île bari te lii mooy seen moyen de transport mbaa moo ci ëpp doole bokk ndax lu loolu dañuy ñëw ba funjuñ ñu jël oto ñu soog a ñëw Kaolack allah ya allah ma ma ja ingin na bay ja ingin ma barama iyande yelwanga iyanda ketelewi nana barke bay barhama maja ingin mambarama iyande yelwanga iyanda ketelewi nana barke bay barhama hilma barama sadaratim joham jegama sowetas ten refu bay barama ingin mambarama sadara tim jokam jika masowetas ten refu bay barama ingin mambarama alaaji abdallahi ñes fafa na bay jekkeero ken i ngid abdallahi ñes fafa na bay jekkeero ken i imam barama imam asajanka yay fana bay jekiro ken ingin mam barama ya ingin mam barama imam asajanka yay fana bay jekiro ken ingin mam barama Allah, barama xubug na anda rogo yal fada ɗe na mam barxama ñesten roga dox nu mboot fe naja ingin mam barama xubug na anda rogo yal fada ɗe na mam barxama ñesten roga dox nu mboot fe ingin ma barama e fa pasuta ɓeem no mbingir na te bug na baay ñes mi deyir ma no muj na no ten a ah, ñooy fire ñoo ngi joge ko Basol eh, une presque minuit waaw waaw egsi fi ah, sant Mawlana Cheikh Ibrahim rek parce que ñu amuñu len amuñu leneen lu dul Baye ñass wallahi wallahi Baye rek a ko jar. ma sha allah moy jaral li yëpp ñu sacrifier di daw ci guddi gi diko daw di xolé ba bësët Baye ñass rek te kenn du mom wallahi may mun a ndong wa merci beaucoup. ah maa lay fay. kaddu nga am bi. man may tuddu tudd Mamadou Diop dëkk karang nekkoon benn dëkk bu ñuy wax Bawut ci île bi. Don fa dundu ci pays bu nga xamné ni dekk bu nga xamné ño gom Maulana Cheikh al Islam parce que dégg naa ci magul dekk ba ci borom dekk ba nee ma Cheikh Oumar Fati Diallo ñew na fi def gamu bu nga xamné bobu dekk ba ay neegu ñax la won mu gesso mu ñu ko señ mi ñaara ñu dañoo bëgg dekk bi yëpp weex mu leen neegu ñax jeex na fi te tay man buma fay nek ñu may wax lool man wéral ma gis na ko dekk ba bobu ben neegu ñax mo nek ci tefes ga ma xamne baye rek deggu baye rek jara andal ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi lay ay tertoo jàmm man dama ñëw ci teer bu fekkee si ko sant nañ gërëm nañ euh waye ko ci allanta yëpp ñu ngi leen dalal ak jam merci. barama e fa pasuta ɓe no bin girna te bugna bay nyes mi deir no mujna no ten hingin maam baraama o soowen naaki baale ten xaatun naaki yeeqale hingin maam baraama namaja ingin maam baraama o soowen naaki baale ten xaatun naaki yeeqale hingin maam baraama salaam mbokku téléspectateur Kossy TV seet na Aliou Gueye kii nag moom koy fekk ma def bi fi jam ñaajo ñun fu mu départ 4 heures 4 wa ngir rek allah rabi ci yeen rek di len ñaanal ca kaw ca kanam rek ci barke Baye Yaara bi Awa Sarr waaw. jërëjëf Seydina Aliou Guèye lii yëpp moo ne rek ne xarañceefu liggéeyu Kossy TV bu jam yàlla yi rafetlu mu ngi noonu Arame Sarr di génn si gaal gi jógee ko jam ñaajo yii mooy taxawaay bi nga xamante ne nii taalibe yi ñu ngi jógee ko si gox yu fasanti ko fu ne di wàcc si fii si Médinatu Mawlana Cheikh Ibrahim gis ngeen tefes gi ba léegi nii rek euh, dafay mel ni gaal yi day gën a bëri day gën a yokku yaay booy ñu fekk la fii bi. waaw sax foofu ñu seen ñëw si gàmmu bi si dem wàcc ak jàmm ami ndong waaw baasul waaw ñu ngay départ ay boori minuit yooyu waaw ay neuf yooyu waaw jàmm àgg nañ si ak jàmm wàcc nañ fi ak jàmm bégal ko ñëw ak jàmm rek di si fa say réew ni asalaamaaleykum euh, wa presse bi Kossy TV ñu leen di jaare di leen di di leen tatagal di kontaan si wuyu gu ñu wuy si tay, tay ba si yonent bi la Maulana moo woote fii si Kaolack ñu wuy si comme ni ko taalibe di defee. Euh, gannaaw loolu aussi ñu ngi sant yàlla bu baax baax jóge nañ si Eli yi bi wax Baasul Baasul nag kenn dootu ko présenté nit ñëpp ko xam si wàllu diine yaakaar naa am ay kàngam yoo xamante ne ñoom comme ñu ay euh, Aliou Len euh, tey nag ñu jóge foofu noonu nekk dëkk bu sori mais Maulana foo jóge rek jar na ko mbirum bàyyi foo munti bàyyee ko jar na ko kon du ñu def dara lu sant yàlla di kontaan yoon bi métti na méttiwul mais mbirum bàyyi jar na lu ëpp loolu. ñu ndokkal waa Kaolack ci kilifa kilifa diine yi ba ci xalifa bi ñu koy ziar bu baax a baax di naan waa Bassoul kontaan nañ teew bi ñuy teew tey ñëpp euh, ñu ngi déparé fa 23h. Euh, 23 heures lañ départ mais ñu ngi yexi fi ni danaka presque 9 heures nga gis ne nga gis ni lolu danaka presque motna presque 10 heures de temps de pirogue te 10 heures de temps de pirogue yombul andak ay jigen andak ay ndaw andak ay góor andak ay mag mais ñepp ngir bëgg tew ci bëss bi nga xamante mom mo jara fété bëss bi nga xam mom mo jara féké bëss bi nga xamante mom mo jara jar a di bëssu sayyidina muhammad di bëss bu sel te ñi am fierté donte gis nañ aussi situation bi réew mu toll. ok waa Kossy TV ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di kontaan aussi si TV bi naa lii macha allah gis nañ ñu ngi ñu bi nga ñu ñëwee borom gaal yi jël nañ seen seen i seen seen i caméra jël macha allah loolu noonu. Euh, cawate bi ngeen am ci liggéey bi ñu ngi leen di félicité bu baax a baax a baax parce que yéen a ngi immortaliser moment yoo xamante ne euh, amaana suñuy doom ak suñuy sëta sëtaat dinañ xamee dinañ fekkee xam ne ah suñu suñu fi nekkoon démb dañu leen daan doxalee. te nekk nañ si jamono joo xamante ne crise am na si côté bu ne surtout ci côté wàllu islamique de li fi xaw si jamono ñun ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp dégg nañ ko ku déggul dégg nga ci presse wala gis nga ci internet bi mais du ñu def dara dul di ñaaxaat suñuy bopp ñu ndaw yi ñu gën a fonkaat suñu bopp gën a fonkaat suñuy diine te gën a jàppaat li nga xamante ne moom lañ fi am te gis na nit ku nekk da am source de valeur suñu source de valeur mooy lan mooy diine islam moom lañ jàpp moom suñu source ku réer ñëwee nga gindeekuwaat kon dañuy ñëw rek pour beesalaat suñuy bop beesalaat suñuy iman comme niñ koy waxé rek ñun moom ay ndongo lañ ay ndongo bay lañ yalla ñu yàlla nekk ay talibé bay ñun ñëpp ok jëre jëf barama e fa pasuta be no bin girna te bugna bay ñes mi deyirma no mujna no ten ingin ma e barama waaw salaamaaleykum rahmatulah euh, mbokk adduna bi euh, rawatina ñiy seetaan Kossy TV man la oustaz Tamsir Sadj euh, nekk coordinateur de Île du Saloum mboolem taalibe Baye waaye nekk itam vice président ci Ansaarud-Din ci département bu Foundiougne waaw. waaw ñu ngi sant yàlla beneen yoon bi ñu yàlla maye ñu fekkee woon daaw fekkee ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu fekkee ay déwén i fi mu nekk nii gaal yaa ngi arrivé Euh, ñu ngi teer si euh, bàyyi ko ci île du ci dëkk yu fasante ko ci ñetti communes yoo xam ne commune Dionewar commune war day composé euh, Niodior ak Falia nga ñëw commune Bassoul Bassoul commune Bassoul day composé Bassar Thialane Diogan ak Siwo commune Djirnda Moundé Ngadior Fambine ak Maya Wanje Diamniadio Rofangue Welingara Bawut fayaaku ak féeli loolu mooy comédien la mooy dëkk yoo xam ne dëkk bu nekk am na dëkk yoo xam ne fukki gaal ak ñaar am na dëkk yoo xam ne juróom-benn gaal comme ni ma ko waxee léegi rek mooy soo demee ci garage ba dafa am ay sept places am ay bis am ay mini bis waaye ki ñu may loolu mooy Mawlaana Seexal Islam bi su bés bi jubsee ku nekk dangay pentir sa gaal ba mu gën a rafet ndax bàyyi moo toujours fu mu toll def daan ndokkel boppam ci weer bi wax na tam tam urahibuhu uhanniuhu wa hatmun ala suaraay kaza ababu taaha bàyyi me nañ mu ngi ndokkel weer bi war na ci ci ku nekk itam kuy woykat wala képp koo xam ne da nga bëgg yonent rek nga ndokkel lu ko ci weer bi kon nag bàyyi moom moom mooy ki nga xam ne moom moo ñu may loolu kon ga gaal yi départ nañ depuis trois heures du matin waaye du duñ yëg coono bi ndax xam nañ ki ñuy fekk si duñ dara ndax xamne ki ñu nàmpal ndax suñu bëgge yonent bi tay ki ñu ko bëggalo moy maulana Cheikh al Islam al Alhaaj ibrahim Niass mi nga xamne bo xone lakal aadu minni ya rasul wa innani uhibbuka hatta ina fil qabri udfanu yow yonent bi colonataire mbëggeel bëggel bo xamne dina la bëgg ba suñu ma suule ci bi suuf sax nga bëgg ma fa suuratu ibrahim tabqa tazakura li feeñ ñii ci gaal yi daf lay loon loolu fa suuratu ibrahim tabqa tazakura kon loolu rek moy li nga xamne mom la ci bëggoon sànni ay cadeau jërëjëf mbokk téléspectateur makas gi mo bam kas ke hilang kan waktu itu jërëjëf mbokk téléspectateur Kossy TV ñu ngi am beneen yoon kàddu contentement si ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi ko àndoon ak programme Kossy TV Seydina Aliou Guèye si technique bi Seydina Moussa bi tey si kàddu gi am contentement bu baax a baax gis ngeen arrivé gaal yi ni nga xam ne noonu lañ ko defee ñu jiyee ko Joal ñu jiyee ko faya ko ñi jóge ko ko jam ñaaco ñi jóge ko jirnda fen fenn fu nekk rek taalibe yi jóge ko nañ ci gox yu fasantikoo ñi deux heures ñi minuit ñi vingt-trois heures ñi bu nekk rek ko nañ fa ngir lan uyu si woote Mawlana Cheikh bi si màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa di ko ñaanal yàlla di ñaanal xalifatu saahibul faydatu tijaniya Cheikh Mahamadul Mahi Ibrahima Niass yàlla fi yàgg te ànd ak waaye di ñaanal yàlla imaamul akbar di ñaanal yàlla baaba borom a yàlla nañ delluwaat si jàmm waaye yóbbaale xam-xam ak màngo mu yaatu si kanam tuuti incha allahu rabbi danañ ànd ak yéen si leen yaatal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mais àndoon na seen mbokk seen xarit seen naa Moussa bi tey si kàddu gi jërë ngeen jëf cameraman Pape Diop فهو أصل الأصول والأنجال بعين لم يصل نوره بعين إلهي